de la loi kenn wàccul yoon nit amul ko wàcc yoon parce que magistrat nga moo tax doo génnee say papier parce que le général Yade sa xarit la moo tax ci moo tax ñoo war a def il n'a pas le droit de faire ça il n'a pas le droit nga jël sa mbuusu poubelle sànni ko si digg tëli bi on t'arrête tu es magistrat moo tax di ngay wax tegoo ko fenn sànni nga ko tegul. mbuus mbuus tali mbuus mbuus mbuus poubelle la la sànni si kaw tali bi.